jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbéri ni gës baa ngi ni yow léemaa ku mëj wal waa dégg ko fay mi chef boy ji ji ji di teer ékey boy grand mi si takk mëne fu ne maa ngi leen di bëgge bu baax a baax di leen jaar vous êtes dans votre émission préférée Galsen Sama Game sur Equivox TV tey nag dañ ñëw seet si benn légende laa ko mën a tuddee koo xamante ni damay ni sax peut-être Sénégal xamuñu ko mais boo génnee biir Sénégal dem yeneen dëkk yi ñooñoo ko gën a xam tey moom lañ seet si Numukunda ñu gënoon ko xam ci alaaji mais léegi alaaji bi daj na léegi nu mu kundaa rek la euh, père ñi lay ziar. deret fu mu jaxasoo xase war faa jeex Equivox bi ñëw ci studio Numukunda Karantaba du nuyu waa équipe bi yëpp du nuy Sénégal di ñaan yàlla na jàmm yàgg Sénégal amiin lépp lu ñu fi yootu ab lépp lu ñu fi wax yàlla lépp doon jàmm ci barke laa ilaaha bu ñu yaakaar amiin amiin père euh, jërëjëf père ñu ngi lay bëggewaat bu baax a baax comme ni nga ko waxee euh, Karantaba euh, nga tuddee studio bi Karantaba mooy lan Karantaba sama benn nijaay bu ñu tudd Cheikhou Ba moo ñu jox tur bi man boobu karantaba mooy fu ñuy jàngee xam-xam. Mm. karantaba mooy fu yaatu fu ñuy jàngale xam-xam yu yaatu yi. Mm-hmm. mu tuddee ko ndekete karantaba benn dëkk bu nekk Casamance la. Mm. ay waliw dëkk fa tamit. Mm. xamuma ko quoi. ba ma ñëwee Cheikhou Ba moom ma ko gën a. leeral ak benn bés bu fi waali ñëwee tamit. Mm-hmm. di enregistré. Mm-hmm. mu gën ma tegal mu ne est-ce que xam nga li nga tuddee ma ne ko non mu ne ma non il faut nga dem ci dëkk boobu ut fa ñaan ma koy. remercier bu baax dem guma fa nag mais dinaa fa dem incha allah. Mhm. dëkku fa ñaan. Mhm. karantaba benn dëkk waliw la boo xam ne ne waa dëkk ay diine lañu. Mhm. tuddee ko karan nag ci suñu làkk mooy jàngal. jàngu euh, xam-xam waa xam-xam voilà. Euh, jërëjëf si leeral boobu noonu. mais tey suñu bëggoon xam Numukunda kii di seetaan sa xamu la kan mooy Numukunda. waa Numukunda benn artiste bu tuuti la boo xam ne ne bu oyof sax. boo xam ne ne dafa jóg euh, def aar dafa judd ci aar ci fekk ay waajuram ñu koy def mm-hmm. papam yaayam ay nijaayam ay maamam moom du ci juddu daal mm-hmm. donc yàlla yombal ko ma jóge ci paa boo xam ne ne mm-hmm. vraiment lépp lu nekk ci Numukunda Banna Cissokho moo ko def ñu ko wax famille Banna yaa famille yi moo ko def ci Numukunda boo pare ma dugal ma tamit gën a yokk sama xam-xam ma dem conservatoire jàng fa aar mi yokk kooraa mi sama xam-xam yokk tamit percussion bi nga xam ne moom ngeen di gis fii. Mhm. am ci ñaari diplôme nag. Mhm. mais yeneen yu si des lu mel ni ay piano ay guitare ay ay batterie samay touche nii la rek. ma ci mhm. ma ciy fooy. ñu ngi la gën a xam si kora moom. kora ak percussion. ak percussion voilà ak chant ak fecc. yëpp dama koy def. Eh, loolu yëpp ngay def. Eh, da nga judd fekk say parent di ko def. yooyu it nga nga dem yokk sa xam-xam. gën a yokk xam-xam. am ci diplôme nag. ñaari diplôme muy kora bi ak percussion yi. dëgg la ñaari diplôme nga ci am kora ak percussion yee loolu am na solo mhm. côté international la ñuy jëm international bi dañ laa xam bu baax a baax mhm. sa doomu Sénégal nga international la la gën a xam ko Sénégal lu war a loolu da nga fa nekkoon yàgg fa wala déedéet dama nekkoon benn groupe boo xam ne mooy premier group rap boo xam ne moo moo moo nekk Afrique Mm-hmm. ma nekk ci groupe boobu yàlla def ma imposer benn musique boo xam ne ne sama koraab ma dugal ko ci hip hop. PBS la xanaa PBS si Black Soul. Mm-hmm. ma nekk ak samay doomu ndey awa di dëggati. Mm-hmm. ma yàgg ci groupe boobu nag presque ci groupe boobu laa defee presque tour du monde. ci groupe boobu laa xamee lu bari. ci vois mais teewul avant may dem ci groupe boobu tamit nekkoon naa tamit orchestre national. du Sénégal mais yàgguma fa. Mhm. tu vois def naa fa deux ans yooyu yàgguma fa après génn ànd ak sunu flavor. Mhm. sunu flavor sunu flavor mooy benn bo. ñoom tonton mag ñoom tonton mag. Mhm. ñoom tonton mag nag ci laa jógee nag gisanteeg awadi. tu vois ci laa nekkee nag PBS nag laa defee sama carrière yëpp. ci nag yàlla yàlla may nag ma daje nag ngand yi ngay gis ci àdduna bi. yàlla boole mag ñoom. tu vois que boo leen gëstoo tamit da ngeen gis. quoi si ngand yi nekk ci àdduna bi kan moo la ci gën a marqué kan nga gën a liggéeyal koo xam ni gars yi xam na nañ ko bu baax. presque ñëpp ñu ma ci liggéey rek ñu ma marqué la parce que ku ci nekk da def loo xam ne bokkul. Mhm. mu mel ni jazzman mhm. euh, bi. mu mel ni hip hop hip bi mu mel ni. yeneen métier yeneen mhm. métier mu mel ni presque reggae man bi. ñoom ñëpp. dama ci daf ma daf ma dox loo xam ne ni vraiment. xam naa ne tamit liggéey rek moo mën a yóbbu nit loolu foofu tamit. voilà di si sant. sa link ak waa Daara ji ak yenn rappeurs yi nekk fii nii ku ci mel ni ay ñoom Bill Jaxoog yooyu. loolu après la. oui su ma link waa daara ji daara ji ku euh, xam PBS ak daara ji. Mhm. xam na ne vraiment dañu bokk ñoo xam ne ay pionniers lañu. ci ci ci hip hop bi ñu tax hip hop bi tey toll fu sori tey. Mhm. ñu yóbbu àdduna bi fépp ba tey tamit ñoom ñu ngi seen seen place. Mhm. donc sama link ak ñoom mooy ba tey rek ñu ngi dëkk ci collaboration boobu. ba ci sama album sax boobu mujjee bi mu mujjee def sax. sama ñoo ñu laa jël parce que ci li ma li ma ni ma mel ci hip hop bi. ak li ma indi. moom laa indi tamit jaay ko ci sama album bu mujjee bi. Mhm. pour wane. ànd ceeg ay rappeurs voilà ànd ceeg ay rappeurs. album boobu sax la waa RFI war a war a produire. voilà wala talent jël ko. Mhm. ñoom ñoo produire album bi. donc yàlla def nag euh, mbas bi ñëw. daaneel ko jot nañ def ay. Euh, clip mhm. clip bi ma def ak daara ji. maa ngi ñëw tamit ak clip bi ma def ak samay jarbaat. ak clip bi ma def ak PBS ak clip kii bi yëpp a ngi ñëw daal yoon bi daal. album bi nga bi waa RFI war a boobu génnagul mbas bee tax mais avant loolu jotoon nga génnee ay album wala. non non jot naa génne premier album sama premier album Tambacounda la mooy fi sama papa yi cosaano mhm. loolu moment boobu Carlou D ak Baye Souley ñoo bokkoon doo génneendoo mhm. album mais moment boobu man damaa yàkkamti woon sax pour génne sama album internat mais comme bëggoon naa bokk mhm. si ñett yooyu donc awadi tegoon nañu benn affaire boo xam ne bëggoon nañu. Mhm. bii bees radical moo doon loo xam ne ne. ñu génnee man Baye Souley Carlo ñu génne album boobu. Mhm. mais moment boobu man maa ngi sama tournée jotuma def sax pro promo. album album boobu mu ngi mhm. tudd Tambacounda. mais ay côté ay Zouk Love ay mbalax boobu dugguma si sama yëfu bopp. donc nag sama album beneen bi bu ci topp. mu ngi tudd Fanning la partage. ni sama papa mel nag. boobu laa wane ci sama album bi parce que loo gis da ngay partagé mhm. te loolu laa mës xam mhm. te loolu la sama papa jàngal lépp mhm. loo am ci àdduna bu la dara ëppal mooy na nga séddoo na nga bokkoo ci sama musique bi comme ñu ma mës a partagé ci àdduna bi yëpp loolu laa tuddee sama papa Faling mu tudd ci Mandeng partage mu tuddee ko Faling muy partage li ma jaar ak PBS ak li ma def ci adduna bi mooy mot su premier album boobu moo may nag lépp nag dañuy gis da ngay expliquer tout le temps yi fi nekk Eh, Omar Pène nag. Omar Pène histoire bu garaaw la. waaw sa digganteeg Omar Pène. waaw sama digganteeg Omar des fois xam nga nit bëggul lu ma bëgg di di di di di vanté man bëgguma loolu. dëgg la loolu xam nañ ko voilà. Mhm. Omar Pène dafa doon loo xam ne dafa daan yee Sénégal. Mhm. musique am. Mhm. tu boobu man maa ngi sama beneen lève musique mais yàlla may na ma loo xam ne ne. mun naa def sama musique mun naa ci développer lu mu man neexee. Mhm. am na ku ñuy wax ménagère Omar Pène mhm. ku ñuy wax Ousmane Faye Ousmane Faye moom temps yooyu maa ngi dëkk Paris maa ngi toog Paris. Mhm. donc moom dafa bëggoon moment boobu nu mu gudd gudd ñu soppi musique Omar Pène indi ci leneen. beneen touche. donc moom ma fekk Paris yónnee ma benn albumu Omar Pène acoustique. mun dañu war a jouer Afrique du Sud. mais damaa bëgg nga relever album bi mais bëgg naa tamit am benn projet boo xam ne ma bëgg. pour Omar pen nu ñu ko mënee def mu nekk international nga indil ma sa touche indi leneen. Mhm. tu vois. Mhm. donc loolu moo wax noonu man tamit beneen combat la boo. xam ne bëgg naa relever voilà parce que mhm. yàlla xam na ne pour jouer tubaab bi man wax dëgg yàlla comme ni ma lay waxee boo yàggee ak ñoom ngay jouer ci bu nee ngay nekk ak ñoom xam nga musique bu leen plaire ak musique bu ñu bu ñu ñu kii. sincèrement sama mbalax la am suñu suñu ñu kii la am mais am nañ tamit benn façon musique boo xam ne ne. mën na plaire tubaab bi mhm. donc yàlla may na ma ci notion boobu mhm. ma kii ci Omar Pène yàlla def ci ndam mhm. Omar Pène tamit doon ko yaatu bëgg ma ñëw nekk ci groupe yàlla def na mënutuma woon nekk ci groupe kenn mais yàlla may na ma mën na saa yu ma soxlaa su ma libre ma ñëw jàppale ko kom ñëp comme ñëpp avant ma koy def Omar Pène def naa ko ak Baba Maal def naa ko ak Youssou Ndour tu vois ah. kon du Omar Pène rek kii affaire mais yàlla dafa may benn level boo xam ne Omar Pène daf may sentir. ma koy sentir waaw yow Omar Pène da ngeen déggoo. voilà dañuy déggoo daf may sentir. ma koy sentir te da lay xëcc tout le temps ci kanam. non daf may sentir xam nga fu muy taxaw ngay taxaw. loolu dama koy sentir ma may sentir. Mhm. ci côté jazz kii bu may woyee ci côté boobu. Mhm. donc saa yi ma woowee mu fekk nekk defu ma dara. Mhm. damay dem. da ngay dem damay dem jàppale ko. yéen a ngi liggéey ba tey. ba tey saa ñu ma soxlaayee mu fekkee euh, euh, euh, nekkuma sama yëfu bopp parce que dama yor sama groupe bopp. loolu la nit ñi comprendre. mais saa yu ma amee jot mu woo ma ma kii ma fekkee ko ma wooyee damay dem. parce que Sénégal moo ma ñor. Mhm. te affaire concurrence yooyu ñoruma. dëgg la xool sama yëfu bopp wala non. Mhm. su ma ko waree jàppale damay def sama yëfu bopp la daal. ma la sama yëf la moom it mu nekk artiste international. nekk ndaanaan. ñoom allah dama am ay rakk yoo xam ne ne. Mhm. bravo laan tuddee parce que tey boo seetee muy Jabel. muy mhm. Baboulaye Baboulaye amul benn. musique traditionnelle sénégalais international bu mu tëggul. tëggul dëgg la muy nga xam ne ne fépp la tëggee. Mhm. amul kenn koo mën a lim tamit yàlla def ne deful sa kii. Mhm. Jabel moom waxi noppi parce que nekku na baaba après dem Londres toog imposé boppam. ba léegi ñëwaat fii di wane boppam. mu mel ni Jalimaadi. sama rakk bi nekk itali kooku macha allah boo tàppee tamit groupe bu muy joué Italie da ngay yéemu ci yàlla. parce que partout dans le monde lay dem. Mhm. sama beneen frère bi Bakar Sissoko moom moo nekk orchestre mhm. tu vois ñoom Karamba ñoom ñëpp aar bi moo leen yóbbu. ak ñoom saajo mhm. saajo tey tamit léegi yàlla def na ko mu yore groupe am. groupe orchestral mu yore kora donc da ngay da da ngay wane ne famille bi léegi. léegi gars yi dispersé nañu. li fi paa bi bàyyi woon daal li fi ñëpp ñëpp ngi seen yoon. te ku nee rek euh, ponkal nga ci li nga li nga. li nga nekk am tamit doom yi way. am doom yi fecc. voilà am naa doom yu woy am naa doom yu fecc parce que comme ni ma ko waxee ñun dañu màgg ci aar bi. Mhm. ñu man damay seen papa rek. Mhm. damay fecc damay woy damay tëgg lu mhm. donc am naa ay doom yoo xam ne ni ñu mel ne Ndeye Ndiaye bànna ko dàq fecc ñu ngi ci kër gi. dëgg ko dàq la yàlla may mu jëf ci kanam. tu vois. ma koy ñaan tamit événement li dal maa ngi jéggalu sénégalais yi. li xam ne moo moo moo dal parce que exemple la boo xam ne tamit dina yee sénégalais yu bari. bi nga yëgee loolu nu mu la def père. mais ah lu lu am lu lu dul naqaru ay père nga xam ne ne benn père bëggul sa doom. Mm-hmm. nekk ci naka su dunu père boo gis ñun lu ñuy wane ci àdduna bi. Mm-hmm. ñu sañ suñu doom yi ñoo ñu koy gën a ëppale. nit ku baax la ndeysaan ndey ja. tu vois mm-hmm. léegi nag moom bu demee ba def yenn conneries man bëgg naa xale yi jël ci exemple. ci loolu exemple leçon la leçon la boo xam ne ne. dina bàyyiloo xale yi def ñu conneries yi mhm. parce que papp yi xamuñu dara papp yi mhm. dañuy jaayante ci àll bi mhm. pap yi dañuy def lu ne pap yi dañuy yar mais dinañ dem ba toll moom nag lii war na ko wan ne boo tollee benn étape da war a jàngale dëgg la yow nag boo tollee bi benn étape ba ba ngay def benn affaire ba nit ñu ñu bon yi ko yóbbu ko ça veut dire nga sa bopp nag jox ko askan bi te ça veut que fii ba ba ngay dee dafay doon benn woy boo xam ne du fay. du fay sa papa liggéeyu loolu. sa ndey liggéeyu loolu. ndeyam dafay sëyil baayam rakk mi liggéeyul baay mi liggéeyul ñu lool. Mhm. mais nag comme ni may waxee am na loo xam ne nag borom kër lay dal. Mhm. man destin mhm. am na loo xam ne boo jógee rek mu war la dal rek da nga koy nangoo ci yàlla. ba pare jox loo xam ne bu mu amati. te moom ci boobaa ci Ndeye Ndiaye ñi ngi jàng ci war na photo seen bopp wala ñuy defati lu bon. wala ñuy wane seen bopp. loolu nit ci jàng ñu. erreur la rek erreur la voilà loolu tamit loolu leçon la boo xam ne da koy jàngale ci biir sénégalais. parce que ñoo war a joxe leçon. lu bon loolu nag bu mu amati yoon nag. Mm-hmm. bu fekkee moom moo ko tey def ko yoon bu ko jàppee da koy téye mm-hmm. man boobaa duma ci wax dara mm-hmm. bu fekkee nit ku bon nag moo ko def boobaa yoon def yoonam man yow après affaire bi toppoo ci dara yóbbuwoo ko yoon non man man ku ko def man duma dugg ci yooyu parce que man dama doon loo xam ne ne comme ni ma ko waxee trente ans ma nekk ci ci benn affaire Sénégal rek a ma ñor. Mm-hmm. jàmm Sénégal. Mm-hmm. ak joxe exemple Sénégal. Mm-hmm. pour xale jàng moo tax mu ubbi fi école musique. mu ubbi fa leneen ñeneen di jàngale. di def loo xam ne suba naa ko fi bàyyi. sama moromaatu morom mi ak sama yeneen génération bu ñooy jàng. donc exemple bu baax laa fi mën a joxe. bu fi joxe nag exemple bu bon. na la yoon teg yoon ma amul sama doom la amul keneen. woo nga ko conseillé ko. mais woo naa ko conseillé ko wax ko ko. comme ni mu ñëwee jégul papa ma ne ko mën naa la jéggal comme ni papa di jégalee doomam. comme yaayam mun na ko jéggal mais am na loo xam ne nag. Mm-hmm. moom da ko liggéey. Mm-hmm. loo xam ne ne dañ ko koo diviser. ci mm-hmm. bon ki ko sànni tamit wala moom moo ko sandi kenn xamul yàllaa xam. donc loolu tamit moom mooy tax ñu mën a joxe leçon ci loolu. bu fekkee moom moo ko jafe loolu boobaa yoon téye ko mhm. du ma bàyyi boo xam ne boobaa damay seetaan damay bëgg mu ñu def seen devoir mhm. suba mu jox mu corriger ñeneen ñi mhm. tu vois bu fekkee keneen ku bon moo def loolu c'est pour détruire papam wala mu détruire famille bi kooku tamit yoon dina ko teg loxo parce que lii détruire famille la détruire tamit loolu te ñaanuñu yàlla pour détruire kenn boobu ba léegi dégguñu nga génn wax ci non yaakaar naa yaa ngi ciy soogay wax non parce que boo gisee dama xam ne tey mooy actualité àdduna yëpp tas na waaw waaw tu vois coow lu muy dëkk bi yëpp coow lu ñu bëri bëri yëpp ñu ngi wax mm. te euh, Adama moo lu mu wax mm. lu nit ku wax rek nit bu defee dara rek mm. nit ñu am nañ droit commentaire comme il veut mm-hmm. nit ñu am nañ droit saaga ko parce que boo fi defee naka su dul noonu lu ñu la a saagee dañ lay saaga mm-hmm. boo fi defee naka su lu baax dañ ko war a wax mm-hmm. doo doo xool diw mooy baayam wala diw la jóge wala diw lii mooy wala diw loolu non c'est nous qui devons donner cet exemple. Mm-hmm. du suñu doom mooy def lu ñu koy jàppale. Mm-hmm. dañ koy wax lu mu def. dëgg la teg ko ci yoon. Mm-hmm. parce que loolu mooy Sénégal. voilà doo xool mais parce que loola neex rek wala non da ngay xool loo xam ne day defar réew mi. nga teg ko wax ko tamit ñu ñi dégg. dëgg la c'est important en tout cas nit ku baax la père. Ndeye Ndiaye nit ku baax la. nit gënu ko erreur nag day nit lay dal dal na ko te yàlla bu ko dalaat yàlla na génn si lii ba delluwaat ci métier fecc bi ñu ko xamee. dafa bëri soppe biir Sénégal gars yi dañ ko bëgg trop mun naa ne sax Ndeye Ndiaye doon ko bëggee père yow mi nga xamante ni yaa ko dugal sax si aar bi sénégalais yi bëggee wuñ la noonu Ndeye Ndiaye lañ gën a xam tiini Sénégal moom lañ gën a bëgg tellement que mën fecc gu mën fecc waa léegi yàlla waa comme moom la ñu gën a bëgg. dina leen jàngal. waaw dina leen jàngal non leçon la leçon boo xam ne dina ko jàngal nag xale yi si napp xale yi def lu bon dina leen jàngal ku képp ko gis rek di nga ne Ndeye Ndiaye. waaw donc loolu tamit loolu tamit exemple boo xam ne mm-hmm. ci moom la jóge mm-hmm. am am na solo jërëjëf per ñu ngi lay bëgg si loolu noonu nga wax. xam nga euh, papa moo doon expliqué noonu. Mm-hmm. Euh, nee na yoon bu waree def liggéeyam na ko def si côté Ndeye Ndiaye wala si côté ñi publier affaire bi. di wax lu ñaaw da nga koy nëbb lu baax mm-hmm. dañ koy fësal mm-hmm. per yàgg nga def lu baax te duñ ko fësal mm-hmm. li ñaaw li ñëw ñuy teg bànneex bànneex xam nga mais yàlla baax na li benn ngelaw la boo gëmee yàlla nag fekkee nag nitu yàlla nga gëm yàlla nga dem ci foi man dama comme ni ma koy wax yow bàyyi faal nga père yow yëgoo lu bëri voilà donc buñ la tegee boo nekkee nga yore nga xam ne yow yaa ngi jiital sa kàddu mi ngi jiital àdduna donc exemple dafa war a génn ci ci ci yow ci ci man donc nag may wax rek comme ni ma ko waxaatee rek di baalu tamit ñëpp ak pera ñëpp mhm. comme nu ma ko waxee di mhm. baalu ñëpp ak li fi passé yëpp si mhm. Sénégal bi ak dee yi fi am yëpp may ne Sénégal nag ñu ngi doo ko def seen devoir voilà nga xam ne citoyen du question dañu jël Sonko ñu teg ko affaire non Sénégalais amoon na benn arme arme bu ñu bëggoon génne pour wane ne tamit ñu dëkk nii la war a doxalee muy ci lépp nag tu vois loolu moo tax crédit crédit boobu génn ci Sénégalais yi pour wane fii kenn du kenn du def lu la neex. kenn du def avertissement bi baax na. voilà avertissement bi baax na. Mhm. day tax suñu réew mi xam ne tamit dëkk démocrate la. dañu mhm. dëkk boo xam ne dëkk diine la. Mhm. dëkk boo xam ne dëkk bu ñu sellal la te dëkk bu ñu respecté la. mu ci diine catholique bi. muy ci diine jullit bi yàlla daf ñu may Sénégal. lu rëy. Mm-hmm. te ñun rek ñoo ko fi am. donc ci loolu bu ci amee képp ku ci war a def yoon. Mm-hmm. du doomu numu du doomu keneen nañ la teg ci yoon. Mm-hmm. man foofu lay wax. message bi ngay jàllale ci xew-xewu dëkk bi passé yëpp. mi yàlla jàmm yàgg doomu ndey comme ni ma ko waxee rek. jàmm moo gën gën ay man dama koy woy sama woy yëpp. waaw yàlla na jàmm yàgg. amiin gis nga jàmm. moo gën ay. xam nga mhm. ñu ñaanee jàmm rek ñun ñëpp comme ni ma koy woyee deret dafa jaxasoo mhm. fii koo fi laal muy catholique muy julli am nga li jaxas ak yow la donc deret fu mu jaxasoo xas sa war faa jeex mhm. comme lu may wax rek kon dañu bokk bokk boobu ñu bokk nag ñun ñëpp nañu yéene leen te jàmm di ñaan jàmm ci adduna bi jàmm si Sénégal bi muy suñu jàmm xam nga man loolu laay ñaan te loolu laay véhiculer sama message boo mën ta gis àdduna nitu jàmm la te jàmm laay ñaan lu ma waay def nag man nu ma ko ndax te muy metti baal naa la li ma waay saaga baal naa la jéggal naa la hmm. yàlla na jàmm yàgg. <laughs> parce que loolu rek a ta a ñaan. dëgg am nga doom buy way tamit. waaw mi ngi ci yoon bi ay doom yi way carrière doom yi way doom yi way am nga si doom bu nekkoon compétition sax. piano ay doom yi hmm. ñëw sax wax. laal cat <laughs> doom yi ñëw bëri mais ñoom doo leen boole defal leen benn. compilation génn ko mais ñi ngi jàng damaa bëgg ñu jàng ba pare. ñi ngi jàng hmm. école ngi jàng. kii bi après boobaa après ma woon Sénégal nag li Numukunda di préparé li nga waroon lekk yëpp après booy. non nit avenir du nga war a lekk yëpp lekk nga ko. Euh, mais tey avenir xale la. waaw xale ah, mooy avenir. Mhm. ñun lu ñu war a def def nañ ko. Mhm. lu ñu war a wan a def nañ ko. Mhm. tu vois tey yàlla def na ma lu fi nekk fii di tagg sama bopp. mais nit bi ñu war a xam boo duggee sama Facebook. wala nga xool wala nga ñëw interview di nga xam Numukunda personnellement. boo duggee tamit di nga ko xam. defuma dara loo xam ne ne pour kii la mais lépp nu Numukunda dundoo noonu lay dundoo. ci lépp bu ci musique bi. bu ci ni ma mel. sa link ak yenn mbalax maan yi ku ci mel ay waale Pape Diouf ak yooyu. non ñoom ñëpp macha allah et puis ñu ngi yëkkati tey suñu mbalax ñu ngi koy teg fu ne. Mhm. parce que ñun suñu culture la amee mbalax mais mbalax bii nii est-ce que père mun na jaay. waaw mais bu mbalax bi dafa rëmbandoo. waaw man de nu mu maa ngi jéem a indi benn touche mbalax. Ah, ah. boo xam ne ne. Euh, euh,

weeroo Sénégal. <laughs> donc may lekk ci ceeb bi. il faut ma mën a dëkk Grand Yoff. <laughs> dëkk biir Grand Yoff. waaw non ba pare dëkk doomu Grand Yoff. dëkk doomu Grand Yoff kooku amul ragal. non amul ragal. waaw waaw album bi mun nañu ko xaar kañ bi nga war a génne ak waa RFI. RFI jënd nañ album parce que xam nga tey boo jëndee sa bu ñu jëndee sa yëf moomatoo ko. Mhm. man su ma sañoon tey tey tey mu génn mais ak mbas mi. Mhm. ñoom ñoo ko jënd ñoom ñoo nekk di publicité. Mhm. ñoom ñoo koy xool nuñ koy génnewee ñoom ñooy génne seen clip. Mhm. donc lool kon yow pare nga si sa yoon nekkatu bopp defaat sax bugguma sax publicité ba bay préparé yeneen. yeneen yoo xam ne yow li nga am ñu bëri amuñu ko de. non mais déedéet liggéey la da def sa album gars yi ko. léegi yow nga pare si. waaw nga pare ci di. après communication bi rek. léegi nag communication bi nag boobaa bu jotee mo woo leen yéen tamit ngeen jàpp. waaw waaw ngeen xam ne comme Sénégal. Mhm. ñu bëri xamuñu Numukunda cent pour cent ci li may yëngu man sama bopp mm-hmm. xam nañ ma nag ci Omar Pène comme ni ñu koy waxee mm-hmm. moom tamit bi yoon nag bëgg naa ñëw toog sama musique boobu jéem ko imposer tamit sama biir di réew mm-hmm. di ko jouer partout pour ñun ñi tamit mu a enjoy Numukunda bu baax état d'urgence bi teggi noonu ko événement yi kañ ngay démarrer léegi nag maa ngi xool ak sama staff ñu xool bëri ci ñu mën a jouer. Mhm. ñu ñu jéem a exposer moment ñu toog nag defuñu dara parce que manqué nañu xam nga boo entraîné wul moom. da ngay manqué entraînement léegi nag il faut. entraîner pour préparer match bi voilà trophée yi nga jot a gagné yëpp. Mm. je xam nga man ñëwal si trophée yi. dama daan am sama benn copain dina lu tax boo demee gagné benn dëkk trophée doo ko wane Sénégal doo toog ci rajoy yi. waaw Sénégal mooy benn dëkk boo xam ne daf am fu ñu visé. Mhm. su ma ko ñëwee toog wax tamit du safe. Mhm. parce que ñun pareeguñu suñu musique bi ñuy def ñu consommé ko. Mhm. musique bi ñuy def suñu Sénégalais bu ñu ko consommé gul. Mhm. nan nga bëgg ñu taxaw di. day day ragal damay ragal mu mel ni léew ak léppoon si ñoom voilà léppoon léppoon je préfère. liggéey ko sama doom yi. mën na gis ne sama baay lii la fi bàyyi. yéen ñi di ñëw ngeen xam ne ah baay lii la fi def. pour Sénégal. booba booba neex. mais perte war nga am disque door amin am naa disque d'or si ñeneen ñi mais sama album amaguma ci disque d'or mm-hmm. waaw am naa disque d'or ci ay ci yeneen production ci production MC Solar ci ay ay Stromae mm-hmm. ñoom ñëpp am naa ci loo Stromae liggéey ngeen waaw ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom macha allah Ernest Ranglin eh, eh, bassiste Rébi Hancock Irakor ñu bëri yéen moom jarul lim per per yow per daalaal nga de voilà seen album yi di nga laal na ay ay master sax leneen mais damay ñaan eh. mu am ko si sama yëfu bopp nag mm-hmm. boobu mooy mooy safal mais gagné naa yenn concours Afrique ñoo xam ne ñoo ma gën a siw mm-hmm. te dem naa gagné concours dem représenté Cameroun dem représenté Nigéria mm-hmm. dem représenté Brésil ci ay trophées yu ma gagné yoo xam ne ne vraiment dama ko dama dama dañu déglu sama sama album Faling gars yi d'accord gars yi d'accord tubaab bi tànn ma ma dem représenté macha allah mm. loolu moo ma may tey fépp fu ma ne ak li ma mën a am yëpp. Mm-hmm. ci loolu laa ko jëlee di sant yàlla. père am na xew-xew bu am euh, muy Thione mm-hmm. di waykat bu mag. Mm-hmm. nekkoon doomu réew mi génn àdduna. sa message si loolu. di ko jaale musiciens yëpp ak waa Sénégal yëpp. en tout cas am na ñu comme ni ko àdduna di waxee. ngan dem perte la ñu am. parce que dee bu berte ñëpp la. wax dëgg yàlla man ci dernier album. dernière bi. bi muy waaj a génne. Mm-hmm. la ma woo avant may dem tourner Paris mu woo ma ci pour ma ñëw jouer ci Kora. Mm-hmm. yàlla def ma ñëw jouer ci ci boobu laa jouer fekk moment bu aw ma sax jot dama enchaîner noonu ma ko jëlee noonu la lendemain matin tin laa jël vol. donc am nañ ci pertement boo xam ne ne tey wax dëgg yàlla monument moo dem. Mm-hmm. koo xam ne ne woyam yee nañu. woyam jox nañu courage. nga xam ne ñun fu ñuy dem rek. dañuy namoo Sénégal. donc dañuy ñaan xam nga. Mm-hmm. Euh, yàlla xare leen arjana ñoom ñi mu fa fekk ñëpp. Mm-hmm. te xam nañu ne ah war nañuy déglu ay woyam. Mm-hmm. ñu ciy jàngaale ba tey. te doom ji fi nekk tamit ñu ñaanal ko. mu nekk ci yoonu papam parce que mu ngi ci yoon boobu. yàlla tamit defal ko yoon boo xam ne macha allah dina yóbbu musique sénégalais. bu parce que ñoom ay avenir lañu. te ñu ngi ci yoon. voilà dañ leen ñaanal. mais loolu pertement bu gën la ci biir Sénégal mooy Sénégal nit moom boo dee lañuy ñuy doog ubbi sax say archive mhm. tu vois pour ñu xam la mais loolu moom dama koy journaliste yi tey dañu war a gëstu ñi nga xam ne ñu ngi représenté Sénégal mhm. ñu ngi jaayante seen bakken ngir Sénégal mhm. ñu ngi dem di wane seen musique ngir Sénégal mhm. lii nga gis Sénégal la juddoo juddoo fen tu vois loo xam ne ne tey adduna bi yëpp ñoo ko war a def politique nga xam ne adduna yëpp dañ ko ñëw di jàngee fii tu vois journaliste yu woote kora bi ñu ñëw parce que fii la juddoo dafa mel ni sabar donc tey boo xebee sa yëf dina dem dina dem Guinée ñooñu dañuy defee ne fa la juddoo fa ñu bëri pourtant loolu la fii la juddoo donc ñun ñoo ko mën a fësal mhm. suñu mag yi tamit ñoo ko mën a fësal mhm. te am na ñu koy def tamit mhm. grand koy def mais fësaluñu ñu ko comme ñu jëlee sabar def ko ci kanam ñu Omar Pène jëlee tey fësal ko def ko ci kanam bu ñu ko fësaloon peut-être suñu musique fii ak dix dina dépassé loolu ñu seen loolu am na solo père li ñu cërale woon ci waxtu mat na mais père avant ñuy tàggatoo faa nga may ñu dara de amul benn problème yéen looloon bëgg yàlla jàmm mbola ila luma domerite yenfa ila malo bantanfa wole khatu ibe kungola ibe kungola mva ninyangi joya joya bu ko ñaaw seen ceeb amul xool loola waral ñi jonaaw ñi ngi jooy ñi ngi jooy di jooy yeneen ne la waa gërëm jàmm ju la woon maa ngi leen di bégg bu baax a baax di leen jox rendez-vous beneen yoon Galsen sama game tey nag dugg ñu ci biir hip hop bi carrément mais kin seet ci oh, mënoo tudd hip hop sa doo ko ci boole ndax def na ci ay collaboration yu bari ànd ak artistes rappeurs yu bari moo tax tey ñu seet si ko waxtaan ak moom ci carrière am ak xew-xewu jamono yëpp ñu ngi koy bégge bu baax a baax rendez-vous sama gars yi beneen yoon